ñëpp dañ mos a nekk benn ñun ñëpp ñoo bokk seen mosuñu am benn xaar bu yàlla entraînement on a jamais eu de problème entraînement loolu la ci sa biir wax nga jekki mel ni ku ku sa bopp euh, la la. waaw waaw mais boobu j'étais un peu surpris dama surpris plébiscite bi moom surprendre quoi parce naa ne au dana am benn benn candidat benn candidat boo xam ne day jàkkaarloo ñun mais malheureusement heureusement je dirais bon loolu amul léeg-léeg leneen liste yi ñoom ñu voté ñu ñëpp jàll ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk un mandat de 5 ans qui ak Sendou goo xam ne dafa de dafa jeune euh, ba pare ressources yu bëriwul euh, mandat bi nan nga ko nar a conjuguer. Euh, mais tu sais boo xamee <coughs> ressources humaines benn vie il faut vraiment espérer réussir quoi vous avez vu plébiscite bi ni mu demee donc c'est que tout le monde va travailler derrière nous donc day yomb quoi s'il y avait presque deux problèmes mën na am. mu quelque part mais tout tout le monde est derrière nous je pense que ça sera facile en français, voilà. Donc, euh, quel est le sentiment après avoir été élu par plébiscite